heure bi nga xam ne moom nga jàpp ne moom nga ci mën nga cee passe temps ba pare continuer dem def yu la neex da nax sa bopp chinois yi ñoom ñooy léebu ne man jële sa saxiran xaysu shaa jële sa kabiran xaysu saa ku nekk ndaw di toog fu la neex boo magee doo toog fula neex